coup de sommation. mais ki la bëgg nga koo rey. mandat bi nga xam ne moom lañ may fale mandat juróom-ñaari at la danaa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi. TFM mbokk yi ànd ak ñun ci seen émission faram fàcce ñi ngi leen di nuyu ñi ngi am mbégte dellu si ak yéen ci émission bi ah, ni ñu koy amalee àllarba bu jot dellu si nañ ci ak yéen di leen jaajëfal bu baax mbokk yi ci ànd bi ah, tey ñu di ci recevoir jëwriñ ji ñu dénk wàllu ndaw ñi ci gouvernement bu Sénégal waaye dénk ko itam lu jëm ci wàllu xëy mi waaye itam dénk ko lu aju ci construction construction citoyenne ah, mu nekk itam lu am solo Mame Mbaye Niang moom la ñuy recevoir tey mbokk yi. Euh, ci seen spécial débat faram fàcce ak télévision Futur Média monsieur le ministre ñu ngi lay nuyu. papa nga ñu ngi lay fay. ma bàyyi la nga nuyoo ak mbokku téléspectateurs yi. waaw di nuyu téléspectateurs yëpp jàpp ni que Sénégal ñi ci ëpp dañu koy seetaan. Mhm. di leen nuyu di leen jaale tamit euh, suñu maam xalif général bi fi jógee nga xam ni lu ku jege woon ndaw ñi la. Mhm. te ku leen doon jàppale ci wàllum xalaat la parce que li waxoon xale yi ba léegi ñu ngi koy jariñoo waaye tamit du ñaan di ñaan yàlla suñu papa Abdou Aziz Al Amin yàlla kàttanal ko bàyyi ko fii mu wér ba liggéey bi mu door mu eggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamin yàlla may ko ci ndam parce que ku yàgg liggéey ci ay jikko la sànq bi ngay wax bi may présenté nee nga euh, ministère de la jeunesse de l'emploi et de la construction citoyenne construction citoyenne boobu suñu papa Al Amin jàpp na ci bu baax a baax a baax. Mm-hmm. surtout ci doomam bu tudd Moustapha si bi may ma koy may profité tamit di ko jaar euh, ñu ñaan yàlla jikko yooyu mu doon liggéey pour ñu dellu siwaat ci jikko yu baax yi yàlla may ko ci ndam. monsieur lu jëm ci euh, waxtaan bi gannaaw bi ñu ñaar bi ñu waxee amin ci ñaan yooyu. Mhm. mooy présenté na la certes comme ministre de la jeunesse. Mhm. ndax jàppaloo nii euh, sa âge romb na ko. trent cinq ans loolu lañu daan mandargaale ministre ci Sénégal rawatina ku ñu dénk ndaw ñi jàppaloo nii tey jii. Mhm. Euh, ministère bi caduc na ci yow ak sa âge. bon boobu dafay fekk nga xam man ban ñaata at laa am ba pare. en cas ñi la jege ñoo koy dingat de te xam naa ni ñoom jombul xam nañ lu ma xam. déedéet ñi dingat loolu ci waxi parti la ñuy wax. Mhm. te defe naa parti bi post bi ma ci occupé. Mhm. ëpp na méngoo méngoowul ak euh, bokkul ci poste yi nga xam ne dañ leen a tënk ci âge. Mhm. bu dee ci ministère bi ministère moom defe naa ni président Ablaye Wade moo fi njëkk a ministre bu jeune. à travers le ministre Aliou Sow. mais ministère bi amul benn amul dara lu ko tënk ci 35 ans bu fekkee nag ci yéene la mhm. wax dëgg yàlla man sama bopp yéene naa sama bopp euh, màgg jóge jàll ci leneen mhm. mais du man may dogal mhm. dafa am kenn ku sénégalais yu wóolu bu kóolute gi jeexee moom la ñuy laaj bilan à travers des élections mu war a présenter bilan. waxoo aussi lu leer ci sa âge ni waxuloo ma ci dara waaw jàpp bu fekkee ni que ci wàllu at romb boobu te. bu fekkee ni que da jàpp ci at wax dëgg yàlla romb naa 35 ans. Mhm. bu fekkee nekk ci at la rek mais pour wax ni que poste ministère bi du ay at président mooy seet parce que ñi ko man ki ma remplacer rek moo ma mag. Mhm. defe naa moom tamit ki mu remplacé moom moo ko mag donc du ci ay age kóolute la. président moom la yàlla jagleel à travers sénégalais yi mu jiitu moom mooy tànn ministre de la jeunesse am bu dee man sama yéene nga ma laaj. Mhm. man <laughs> naa ne la wax dëgg yàlla. def naa maa ngi def sama kéemtulaay kàttan et peut-être xëy na ku ma woo feneen ma dem. d'accord alors monsieur ministre si beneen ponk bi nga xam ne bëgg naa ñu taxaw ci muy wàllu actualité. Mhm. lu jëm ci mbiru xalifa Sall dañ gis nga taxaw ci taxawaay boo xam ni. Mhm. dama xamul loyauté la wala mhm. responsabilité li ma bëgg a wax loyauté nag mooy. le président am ci maanaam seen gouvernement am ci combat bu ñu nekk wala ci doxalin bu ñu nekk nga dem. ci euh, nga dem au charbon ni ñu koy waxee ci suñu jargon. wala responsabilité mooy bokk nga ci ñi nga xam ne ñoo ko ci dugal maanaam jàppal Khalifa Sall tëjal jàppal Bamba Fall tëjal mhm. li war loolu moom mooy am na ñu ñuy jàppee au faucon ay faucon kon ci mhm. ci ci wetu président de la République mhm. bari na ñu la ciy joxoñ ah, ni ci nga bokk yow ak ñeneen te ni ñu la gisee nga demee au front ni ñu la ci gisee ci point de presse ci leneen ci l'affaire Khalifa bariwul ñu demee noonu ci responsabilité boo ci am la wala ci loyauté waaw man dama jàpp ni que nit ki bu bokkee ci dara li anglais di wax go hard or go home dem ci ba jeex wala nga toog sa kër bañ a sonal nit ñi. nit ki boo gëmee dara dangay ngay taxaw ak pas-pas. mais lépp nag nga teg ko ci yar ak dëgg. ak maandu ak gore. yëfi mbiru xalifa Sall du loo xam ni dañ ni dañuy dem défendre ko yoonu Sénégal charti Sénégal. pouvoir bu tudd justice. moo entamé ay poursuites. contre benn citoyen boo xam ne def na comme bis bu nekk ni muy amee mais bu Khalifa Sall bon euh, yitteel na. da ko bëgg a def mu ordinaire monsieur le ministre. du lu ordinaire non non. mbiru Khalifa Sall du mbiru keneen ak keneen. non mbiru Khalifa bu ko def lu ordinaire. mbiru Khalifa Sall. li tax peut-être yow nga mën a jàpp ni que ça sort de l'ordinaire mooy que mooy maire dakaar non au-delà de mais dama ni. man ku ci nekk am na ambition yow mi am nga ambition ñii toog fii nii am nañu ambition 14 millions dinañ ci ñëw ci wax ji. sa xalifa jàppal ni du lu ordinaire. waaw nga bëgg ko jàppee non juste dafa def lii ci benn citoyen nangam nangam moo tax ma wax la moo tax ma wax la mhm. ni que li ci mën a génn ordinaire mooy que Khalifa Sall mooy meeru Dakar bu ñu duggee ci lu tax loolu lépp am dinaa la wax ni que te di nga comprendre ni que sénégalais dinañ comprendre ni que taxawaay biñ ci am mooy taxawaayu euh, ñuy jiiñ sa kilifa ni que am na lenn lu muy def yow mu wóor la wóor yàlla parce xam nga. tënk yi parce que da ngay bokk ci da ngay ci conseil des ministre di dégg ñuy wax nga dégg sa yeneen collège yi ñuy présenté nga xam boo xamee dëgg bu ñu toroxal dëgg bu fekkee ni que li ngay woote dëgg la ci yow da ngaa war a taxaw wax sa aqulaay taala ak sa ngëm-ngëm. Mm-hmm. rôle boobu laa ci joué du ma foogoon nitu jàmm laa ñi ma xam-xam na ni nitu jàmm la waaye nag. am naa ci egg ba wax ci ay wax yu ëpp parce que bu ñu nekkee ci senegal nga naan. Mm-hmm. Euh, amul sant niw amul sant nangam ku fi sant nangam ñëpp a yem tu penses que loolu sa wax la. waaw ci réew moo xam ni. dañ fi am ay réalité am fi culture. réalité bi ay kilifa nekk fi. waaw ñii sant Mbàkke ñii sant si bokk ñoo ñii sant Njaay nga war ko xam. waaw waaw. réalité yi mooy la mais réalité mooy. mooy li ma wax dama ni. li ma mhm. wax mën naa ci jaaraat fii. dama ni bu ñu bëggee nekk ci réew mu dal. Mhm. bëgg ci nekk ci réew mu jub bëgg nekk ci réew moo xam ne ku ci nekk sa xel dina dal dañuy yamale nit ñi yamale nit ñi nag bu fekkee kilifa diine yooyu nga nga tudd bu fekkee ne que ñoom la ñuy tudd mais ñoom ci seen bopp kilifa diine yi ci seen bopp ki ñu jël référence muy sallallahu alayhi wa sallam moom ci boppam moo njëkk a wax ni que ñëpp nañ yem kilifa diine yi suñu maam yi ñi ñi ñi samp kër yi loolu lañ bind bàyyi fi bu ñu yemalewul ñëpp. mooy li président Sall doon wax ni ñëpp ay citoyen ordinaire lañu. yow xam nga xam nga xam nga dégg naa sama papa sëñ Mbaye si. waaw sëñ mbay si récemment dégg naa ko mu wax moom. ci modestie ah. ci modestie ci modestie la ko waxee ak humilité parce que ñoom dañuy ak ñoom dañuy yar nit ñi. waaw xam nga ñoom dañuy yar nit ñi. ku yar nit ñi dangay wax lu jariñ nit ñi amul amul xàjj seen ñëpp ay doomu aadama lañ ku ci nekk yàlla am lu mu la cërale am lu mu la féetale bu ñu bëggee nekk ci jàmm ñoom lépp dañ koy yemale waaye ci kanamu yoon li nga xam ne mooy tënk ñëpp ñu ñëpp a ca war a yem d'accord alors bu ñu jëmee ci. wax jooju lan moo ci ñaaw non non li ci ñaaw mooy dañu dégg benn kilifa diine bu jóg taxaw am lu mu wax ci ci xalifa Sall ñëpp dégg ko mu wane PTM. Mm-hmm. Mm-hmm. wax ni bu demee kaso ma dem kaso. Mm-hmm. nga taxaw daal ni amul ku sant diw ak ku sant diw. déedéet kilifa googu ci point de presse bi laaj nañ ma ma tontu li ma tontu mooy dama ni benn sama papa nawloo naa ko ndax fi mu bokk nawloo naa ko ndax li mu jiite damaa jàpp ni que. benn version la dégg mooy benn pàcc bi la dégg maa ngi koy ñaan ñun ci cër bi ñu am ci moom mu déglu ñu beneen version bi. d'accord. d'accord noonu laa loolu laa wax. d'accord léegi monsieur le ministre euh, ñu taxaw tuuti ci lafaire Khalifa Sall. parce que dafa nekk mbir boo xam ni euh, dafa mel ni dangeen di foowee kaso. Mm-hmm. xëy na nag li ngeen xamul ci seen biir ñu ci bëri ci yéen xamuñu kaso. Mm-hmm. commencé ko ci président Sall moo tax ñu jàpp ni kaso ku jóg war nañ dafa tëbbal. Mm-hmm. loolu moo tax euh, benn opposant amatul jàmm ku yëngatu def ci kaso bi. mais bu ñu ñëwee ci l'affaire Khalifa Sall juróom benn weer. des ci ay échéance électorale yoo xam ne daf ci wone yéeneem. ñu jàpp ko def ci kaso bi même bu fekkente ni légitime na ndax jàpp nga ni rafet na jaadu na. ci ñoo xam ni ci ci mbiru gentleman ngeen di dem ci ay confrontation ndax yaakaar nga lii mooy taxawaayu régime buy wote démocratie ak république. waaw xam nga démocratie ak république dinañ ci toon ñëw léegi mais da nga ni ku yëngu kuy opposé wu ngeen tëj ko ci kaso bi wax ma ban opposant lañ tëj ci kaso bi. mais du ma ko doon lim du fi jeex. non nañ nañ wax rek. Khalifa Sall def ngeen ko ci kaso bi. Bamba Fall def ngeen ko ci kaso bi. Euh, Oumar Sarr def ngeen ko ci kaso bi. maître Amadou Sall def ngeen ko ci kaso bi. Mamadou Lamine def ngeen ko ci kaso bi. Toussaint Manga def ngeen ko ci kaso bi fi laay fanaan ah. monsieur le ministre non fi laay fanaan vraiment non foofu laay yem. non léegi ñi nga lim ñooñu ñëpp quoi est-ce que dañoo ñi nga lim ñooñu ñëpp est dañoo xëy xëy rek dem jëli leen tëj leen ci kaso déedéet. ñi nga lim ñëpp ku ci nekk am na lu mu def mais comme que bu xalifa nga wax dinaa la wax xalifa la def. président de la république dafa indi acte trois de la décentralisation mu nekk ponk ci réforme yi mu indi parce que li ñu ñuy fàtte mooy acte un am na acte deux am moom moo indi acte trois. contre Khalifa acte trois. déedéet déglul rek. acte trois kay Sénégal gi yëpp la ëmb. ñu jóge ci ay PCR egsi ci ay maire mhm. yamale ñëpp loolu gis-gisam la ci sénégalais yi moom la ñu wóolu pour mu doxal gis-gis boobu. Mhm. ñu dem at ak genn wàll mu ni dañ koy évaluer pour xam lan moo ci baax lan moo ci baaxul dañ koy fan la ñuy jubbanti corps de contrôle IGE dem saytu mm-hmm. ay maires yi mm-hmm. ñu dem saytu ji ay maires yi def rapport def ay recommandations def ay poursuites ku ci nekk am fenn fu ñu la war a jaar jaarale mm-hmm. rapport boobu ñëw président bind ci lieu approuvé jox gouvernement bi gouvernement bi appliqué xalifa ñu ko ciy topp pour caisse d'avance caisse d'avance bi 30 million la. ci li mu wax ci gestion ville de Dakar. waaw ngeen ko jàpp ci caisse ngeen di ko topp ci caisse d'avance est-ce que c'est pas ridicule est-ce que nekkul lu lu lu lu ndaw. est-ce que nekkul lu ndaw boo waxee lool mooy da ngaa xamul lan mooy caisse d'avance man mii maa ngi ci caisse d'avance. e semaine nationale de la jeunesse bi ñuy jiital nii bi ñu bi may bi ñuy fête nii ci caisse d'avance lañ ko lañ ko jëlee. caisse d'avance bi dañuy wax ni que ci lii ngeen mën a dépenser xaalis bi après da ngeen di indi ay facture donc bu fekkee ni que da jàpp ni que. Euh, te caisse d'avance yëpp a nga yaakaar. Euh, euh, non caisse d'avance yëpp a yem caisse d'avance la. est-ce que xam nga na ko. Mhm. xam nga xaalis alalu askan bi bu dee dërëm sax am na solo. Mhm. bu dee benn dërëm la am na solo. dañ ko auditer gis ni que. am na problème mu bu am ci caisse d'avance boobu. boo xam ne xayma nañ ko ci trente million moom boo jëlee ci li xalifa wax dangay dégg mu ni caisse d'avance bi man dañ daan yëkkati xaalis bi di ma ko jox xaalis boo xam ne boo koy génnee da ngay falsifier ay facture ni da ngay jënd dugub da ngay jënd ceeb pour génne xaalis bi man koo jot loolu ko koy def xam ne ni jubul. Papa Ngañ ke fii nii seen seen seen seen comptabilité bu ngeen bindee ni que da ngeen di jënd micro dangeen ngeen di jënd kii micro ak kii loolu ngeen di jënd bu fekkee ni que da ngaa bind pour ni que da ngay jënd micro ba pare jaar ci suuf ñu jox la xaalis Papa Ngañ loolu nan la tudd. fond politique laa ko tegoon. déedéet déedéet. fond politique. non déedéet ci li mu tontu da nga ne ma dégg li Xalifa wax. déedéet dama ni. fii nii. ku fi bind ku fi indi facture. ni da ngay jënd micro ak caméra. gestion yi bokkul. waa de xaaral rek non gestion yi bokkul xaaral rek waa déedéet defal ndànk boo fi ku fi indi facture. ni da ngay jënd caméra ak micro boo génnee dem jëndi ko leneen kooku lan la loolu du jubadi. Mhm. bu loolu dul jubadi lan mooy jubadi. Mhm. xaalis boo xam ni yow tudde moom nee na tudde na ko fonds politique. waaw fonds politique. fonds politique am doo ko justifier ci ci langage bu basique fonds politique amul ci texte yi ay fonds spéciaux moo am. man ci li ma xam ñaari kuréel lañ koy voté assemblée nationale ak présidence de la république fonds politique assemblée nationale lañ koy voté. xalifa 30 millions yooyu mu bëgg a tudd ay fonds politique conseil municipal am sax xamu ko. d'accord mais fonds yi ñuy dégg ak premier ministre di ko dégg ak président assemblée nationale. loolu lan la déggoo li ma la wax dama ne la fonds politique. fonds yii ma lay wax fonds spéciaux yi ma xam. waaw man président moo ko am moo ci am droit ak assemblée nationale. xalifa 30 millions mi mu bëgg a wax conseil municipal am voté wu ko yëgu ko est-ce que comprendre nga xaalis boo xam ni ca li li lay wan ci ay tontoom rek laa lay wan ni la peut-être li mu li ñuy wax ñu ngi lëndëmal xelu nit ñi. rapport boobu bi ko IGE defee xalifa dagg nañ ko 30 millions yi pendant 8 mois mas nga koo dégg yow. loolu moo lay wan ni mosu ko intéressé. déedéet waaw huit mois kay lu ñu ko dagg moo lay wan ni la te téye leen seen yëf. waaw déglu ma ma ni est-ce que. waaw biñ ko ko dagg non kenn dégg ko. kenn dégg ko na ko. xalifa bi muy leb ñu ne ko li ngay leb dafa ëpp sax dégg nañ ko wala déggoo ko xam nga dégg nga ko Sénégal gi yëpp dégg ko. ci emprunt obligataire. voilà xalifa bi mu bëggee defar place de l'indépendance ministre bi ministre bi yor euh, renouveau urbain ni moom tamit am na fa projet dégg ngeen ko wala dégg ko waaye léegi nga jàpp ni ku ñu dagg bu fekkoon ay fonds politique la comme ni mu koy waxee ñu dagg ko lu mat juróom-ñeenti weer xalifa ŋaangul kooku xam na ni li muy def jubul kooku ki ñu dagg ku ñuy dagg million par bis ca naangoo ko ca lu xew nga daw ci mbedd mi woo journaliste yi woo ñu ñi dañ may tere liggéey ñu lay dagg million par bis pendant juróom-ñeenti weer sénégalais yi yëguñu ko ko loolu moo lay wan ni ko waajooju li muy def jubul yow yaa ko gisee noonu. non déedéet yow yaa gisee ni la muy def jubul wala moom mu gisee ko ni bu leen neexee ngeen dagg ko du tere ma liggéey suñu papa ngañ voilà def leen lu leen neex papa ngañ koo xam ni da dem di lebi jàpp ni que xaalis bi yow war ngaa leb parce que ah. kayit yi war na laa war na laa may nga leb ah. ñu ne la li ngay leb dafa bari xoolaatal bor bi nga génn yuuxu Dakar gi yëpp ñëw ñu ni dañuy defar place de l'indépendance ñu lay dagg trente million par mois pendant 9 mois kenn yëgu ko moo lay wan ni li mu nekkoon jubul loolu mooy ci benn xaalis boo xam ne boo koy génne dangay indi facture yu faux mooy maanaam da ngay soppaliku nii da ngay jënd dugub dangay jënd ceeb après pour mën a jël xaalis bi papa ngañ loolu bu dul jubadi xaw ma lan mooy jubadi monsieur le ministre léegi nee na moom léegi d'accord nga ni loolu la fa fekkoon moom bi muy ñëw en tant que maire loolu moo fa nekkoon gis nga wax jooju il faut ñu leeral ko parce que man dégg naa kenn ku bokk kër Pape Diop mu ni loolu Pape Diop yëgu ko moom ci boppam c'est que bu ku déglu moom li muy wax ak waa këram di nga xam ni li ñuy wax wëñ bu weex lañ koy lañ ko ñawee mooy maanaam nit mën na ci teg bët moom nee na daf ko fay fekk këyit fii defe naa ci émission bi fii nii xaw ma ban émission la yaa xam mbay génn décret bi effectivement décret 2004 la Abdoulaye Wade moo ko président Abdoulaye Wade moo ko signé di di réglementer caisse d'avance boobu mooy donc deux mille 2004 la décret boobu am donc ñi ci ginnaaw mënul cee wax. Mhm. moom nee na bi Pape Diop bi muy dem dafa yóbbaale kayit yi archive yi mais archive fu archive amul IGE buy audité nan la koy audité bu ñu nax nit ñi. d'accord mais monsieur le ministre euh, caisse d'avance bu dépassé vingt millions trente millions fan nga ko gis ci Sénégal. non caisse d'avance boobu. Euh, non que defe naa euh, directeur du trésor am na bu mu def. waaw yéen a ci sénégalais yu bari. li ma la mën a wax. mais li ma la wax dégg ko caisse d'avance. caisse d'avance. bu trente millions. ma ni la caisse d'avance mën na egg sax cent mais ban nga gis booy di 100 millions fii nga ne ma bii la rek ñu xam. exemple bu clair mais man yàggul dara président signé na caisse d'avance pour ñu fay ay militaires ñi demoon mission. Mhm. caisse d'avance boo ci dé boo ci dépensé da ngay indi. man fi mu nekk nii caisse d'avance bi bi ñuy dépensé pour organiser semaine nationale de la jeunesse dañ naan lii fay nañ ci hôtel indi facture hôtel yi lii jox nañ ko xale yi pour ñu jënd ci ay t-shirt mobiliser ñu indi waa léegi moom caisse d'avance am xaaral chaque mois chaque mois déedéet du chaque mois man activité bi ñuy def non mais activité ville de Dakar mais moom laa lay wax nii waaw bu dee active ce que amul activité bu ville de Dakar di def bu budget bi jëlul en contre foofu la naxaate bi amee xam nga moom biñ ko laajee nee na daf ci doon dimbali ay néew di doole di ci faj ñu feebar di ci faj euh, ñu am ay ay problème mu cancer mais li leen waxul mooy ci budget am na cent cinquante millions par at yoo xam ne ci loolu la. ci budget am na 1 milliard astafurla du cinquante million am na cinquante million yoo xam ni pour dimbali néew di doole yi la ak jàppale waa Dakar yi nekk ci ay jafe-jafe am na 1 virgule cent un virgule. am na un milliard deux cent cinquante millions yoo xam ni pour fay ay bourse étudiant la am na deux cent millions yoo xam ni pour dimbali jàkka yi ak église yi la am na cent quatre-vingts millions yoo xam ni pour jëndal nit ñi ay xaru tabaski la ak yóbbu leen màkka am na soixante millions yoo xam ni pour euh, pour aider ministre man li ngay wax nii yëpp li ngay li ngay wax nii loolu boo ko xayma non non xam la moo ma ci jaaxal mhm. li ma ci jaaxal mooy autant de milliards yi nga may wax autant de budget yi nga may wax pour lu bëri bëri bëri mhm. mais IGE bi ñu demee mhm. dañoo xool ni amul dara loo xam ne mën nañ ko ko ci reproché ci loolu nga ma wax ci ñu ko doxale xam nga loolu rek loolu lu ñu war a mën a lu ñu war a mën a apprécier la ci maire de Dakar kon yow da ngaa jàpp ni que di jël trente millions. non waxuma loolu ba léegi waxuma ko de. ah li ma wax lu leer la non non non bala ma ñëw ci caisse d'avance bi. non non mais non récit bi nga def fii nii. dafa nekk loo xam ne dama yaakaar ne sax dafa mën a nekk. waaw mën a nekk soit da ngaa xeeb trente millions par mois yi mu doon jël ci mairie Dakar. non foofu problème bi ma ah, problème bi ma am laa lay wax man mhm. problème bi ma am. Mhm. ci esprit bi la ak lettre bi. ci esprit bi ak lettre bi. waaw léegi ci esprit bi ci lettre yow nga may wax ci esprit bi. man dama jàpp ni ni ni mu ko doxalee noonu la ko war a doxalee. non déglul ci esprit bi. waaw ci esprit bi. mooy alalu askan bi dañ ko war a sàmm dërëmu askan bi nit waru koo jël. ci lettre bi mooy mënoo présenter ay fausse facture pour di jël trente million par weer. c'est-à-dire mënoo nii dangay jël xaalisu maire bi 30 million weer bu nekk damay jënd quinze millions dugub 15 millions euh, ceeb ba pare di ko jël xaalis ba pare miimul xam nga li ci gën a ñaaw mooy moom miimul après mu bëgg mu bëgg a yàq jaxase xelu askan li tax miimul kay mooy jàpp na ni ci njub la ko teg non miimul ci yoon la ko teg waaw léegi bu doon keneen kay mu miim est-ce que léegi bu fekkee jub la waaw est-ce que ku jub waaw ku jub waaw ku jub laa wax de soxla na dem ni damay jënd ceeb pour jël xaalis bi dem ni damay jënd dugub pour jël xaalis bi loolu jub la papa nga mais bu loolu dul jubadi lan mooy jubadi. monsieur le ministre. waaw déedéet non non nañu retourner tuuti. xam a laaj tey parce que yow li nga ma wax ci budget eh, li nga hmm. ni ma autant de millions pour dimbale les nécessités ñi nga xam ni dañu soxla. autant de millions pour pour jàppale ñeneen. Hmm. autant de millions pour leneen ak leneen. Hmm. E dem fa. corps de contrôle yi dem fa. gis ni amuñu dara luñ ko mën a reprocher. mais moo lay wan ni que. na moo lay wan ni moo lay wan ni que kon li muy wax ni que dañ koy topp. parce que da doon dimbali ay nit amul xam nga ko am 3 milliards pour dimbali nit ñi soxla woo 30 millions yooyu dimbalee nit ñi papa indi facture bu baaxul pour génne xaalis mais bu loolu dul juba jubadi lan mooy jubadi papa ngañ ci ban réew lañ nekk mooy cest à diir man mënuma comprendre mooy ci Sénégal bi ñu bëgg a dugal fi mu nekk nii mooy nit mën naa dem luubal indi ay facture am def ay njurug njalangam pour génne xaalis bi dem loolu la ñi ñi nekk di défendre. waaw ah, man de parce que man li may li tax mënu ma wax ci loolu li tax duma ci mun wax mooy fonds politique dama dégg fii te kenn weddiwu ah. ko ni jël ko nga taal ko yoonu kenn nekku ci kon facture boo mën a dugal ak boo génnewul loolu amu ci solo kooku fo fonds politique la wax waaw fonds politique mooy fonds spéciaux yi fonds spéciaux yi IGE amu ci sax gëw ma ni sax IGE mën na contrôler fonds spéciaux yi parce que fonds spéciaux yi yoon dañ koy voter assemblée nationale xam lan lay jariñ wax lan la ci ki ñu jox fonds spéciaux yi mën a def mairie Dakar amul fonds politique. d'accord moom ñenn ñi dañ naan wàllu tax ñu jàpp ko moom rek mais moom ci boppam nee na li am ci mairie boobu amul ci beneen mairie. waaw mais loo xam ni amul ci beneen mairie mais bu ñuy jàpp yow ci yow mi mu am rek la ñuy jàpp. d'accord. d'accord mais man man man monsieur le ministre jàppoon naa ni satisfait si maanaam ndokkeel ko la ñuy def xalifa man loolu laa jàppoon de parce que li nga ma wax nii yëpp ci budget keneen wax ko man de loolu laa jàppoon bu ko ci mën a reproché ñu wëlbatiku dem nii ko ciy def ci kaso bi man mii man mii d'accord loolu loolu loolu man man mii d'accord man mii loolu laa jàppoon ba ma waxee ni que dafay indi quinze def chaque weer wu nekk mhm. bis bu nekk mu jël un million ci mairie de Dakar dugal ko ca la ko neex ni dugub ak mboq la koy xaw ma dugub ak ceeb la koy jënd ci léewu ko ko d'accord kon man mun a bu fekkee ni que li ngeen di wax kon man man dem jëli xaalis bi ñuy organiser semaine nationale de la jeunesse ni caisse d'avance la ku lu ma neex laa ci def dem faj samay soxla dara duma ci topp. bokkul bu def comparaison yi. Ah, bokkul itam si si c'est que bu ñu la dee def c'est que xam nga dafa am lenn lu am. ok da may may ma ma leeral ko gis nga Sénégal président Diouf moo ko njëkk a commencé créer créer. Mm-hmm. commencé après buru yi yëngu ñu naan ay dina ko def du ko def jàpp nañ diw xam nañ ku sant Jóob kuñ jàpp ku mhm. kër après ñu bàyyi Macky dafa waxoon ni senegale ni que dinaa fi indi ak njub du dellu ginnaaw man maa la wax ni la du dellu gannaaw ak foo mën a bokk ak ci koo mën a àndal ak koo mën a yaakaar ku luubal alalu askan bi dinañ la jàpp. monsieur le ministre njub mooy. waaw jàpp Karim Wade. Mhm. ni dafa jël 694 milliards réew mi. ñu mujj ci ay six ay cent et quelques milliards. ak njub mooy. askanu Sénégal. di la xaar ci loolu. mu tëdd ci kaso bi ay ñetti at ak nangam. ñu utal ko ay këyit avion di ko xaar mu dem yoonam monsieur le ministre loolu mooy njub. njub mooy njub mooy Papa Ngagne Karim ñëpp dañu waxoon kenn du ko àtte jëlul dara njub mooy Karim Wade àtte nañ ko. njub mooy dañu waxoon dañuy diil. doole xaaral. jaay doole mooy atte nañ ko tëj nañ ko dafa ndànk njub mooy dañu waxoon ni que dañuy diil affaire bi du egg duñ ko atte ñu àtte ko. njub mooy dañu waxoon ni que du ko mës a tëj mu tëj ko njub mooy dañ ni mu bénéficier grâce comme yeneen sénégalais yëpp yi am grâce noonu la bénéficier grâce famille dem moom moo ko xam lam amee askan bi mi ngi fi liñ jël ci moom mi ngi fi loolu mooy njub. bokkul ak ak ak ay yaakaar naa wax naa man ti li ma la wax nii loo ma la ci wax. lim amal askan wi mi ngi fi mooy bu fi tegee tànkam fay ko. bu ñëwee Sénégal fay ala kulli aali xaalis boobu dina ko fay. même bu nekkee feneen dina ko fay. non non non déedéet. non non bu ñu naxante. monsieur le ministre déedéet. bu ñu naxante mais bu leen naxaskan yi aussi. non non non kenn naxante bu ñu naxante. non non gis nga li ngeen di def nii. du PDS ngeen amal problème. Papa Ngagne askanu Sénégal ngeen amal problème. monsieur le ministre moo tax ñu mën a gis nga bu ngeen bëggee diile ci l'affaire Karim Wade bi. moo tax ñu mën a bëgg ko xoj ci bul ñëw fii di fi campagne bul ñëw fii di fi bëgg benn ambition. toogal wala bul boo ñëwee fii indi xaalis bi mais loolu askanu Sénégal ngeen amal affaire. loolu loolu loolu loolu. non askanu Sénégal ngeen amal affaire loolu ñi xamul ak ñiy wax ay ñooy wax mhm. Mhm. mais dama ni. waaw njub mooy. non njub mooy dañu waxoon jël na ñu ni jëlul am na dégg naa sax ñu naan fayeeku wuñ ci dara ana xaalis bi ñu fayeeku mais bul sori demal fii aéroport société d'assistance bi gën a taxaw AHS la tudd Karim Wade ñu ci ci ci ñoom ñoo ko bokkoon. loolu boo ko xaymaa ëpp na fukki milliards duggaat na ci gafak san ci gafak réew mi. waaw ah, déedéet dañuy wax rek. Ah, waaw dañuy ah, wax dañuy wax rek. dañuy wax rek société bi doon transporter heure boo wàccee ñu jël. ci biir avion bi nga ñu jënd. ñu jël ñaar téeméer ak juróom fukk ci biir avion bi nga fay ko dugg dem dugg ñëw société boobu delluwaat na ci gafa état bi donc bu ñu nax nit ñi c'est que cest bu fekkoon bu leen nax nit ñi yéen aussi. non bu leen nax nit ñi. bu leen nax nit ñi ci Karim Wade demal nga toog Qatar boo tegee sa tànk Sénégal nga génne xaalisu Sénégal c'est-à-dire loolu moo graaw monsieur le ministre déedéet bu toogee foofu Qatar dina génn xaalisu Sénégal xaalis bi kenn baalu ko de ala kulli àll dina ko fay ala àll dina ko fay ku xam ameel réew soxla woo pour di nekk taka nekkal Zurich wala nga nekk Singapour wala nga nekk États-Unis état bi bu bëggee recouvrer ay biens dina recouvrer ay biens échéance bi dina fay Mm-hmm. il va payer fii dil amu fi léegi nag ku bëgg a wax sa dil ñoom nga wax sa dil ñoom ñooy dil mais ñun boobu ba léegi li président di wax wàccuñu ko duñ ko àtte dinañ ko àtte duñ ko jàpp dinañ jàpp nañ ko duñ ko tëj tëj nañ ko dañuy dil gracier na ko comme yeneen sénégalais yi mooy wax duñ ko tëj léegi après kuy wax même histoire bi mooy wax duñ ko tëj wala duñ ko jàpp même histoire bi loolu moom même histoire état moo koy wax même histoire bi mm-hmm. moo amaat nii ak xalifa c'est-à-dire nañu bàyyi di défendre loo xam ni wax dëgg yàlla méngoowul ak worma. ak koo mën a doon non histoire bokkul. loolu mooy benn xalifa du Karim Wade Karim mu baal ma. non non dama lay expliquer bu baax gis nga li may bëgg wax nii lu am gis nga xalifa du Karim Wade. xalifa kan la xalifa ci dëkk bi la dëkk. Mhm. est-ce que yàgg ci dëkk bi ah, Karim dëkkul non non juddoo ci dëkk bi. màggee fi waaw dafa fi jeunesse am dafa fi politique nekk fi parti socialiste am fi ndombo tànk bu ne. am fi nijaay. Mhm. am fi leneen. xalifa euh, bul ko yemale ak Karim. waaw déedéet. non lu leer la ah. mooy différence non dama lay expliquer lan mooy bi di nga ko xam. lan mooy différence mais di nga ko xam. ba yow yaa ngi fi. loolu war naa tax di xam di nga xam lan mooy différence. loolu loolu war naa tax. yow di nga xam lan mooy loolu war naa tax. ok ba xalifa parce que fii la juddoo fii la màggee comme 13 millions de sénégalais peut-être 1 million ñoo fi juddoo wul. d'accord 13 millions de sénégalais ba xalifa am droit chaque weer mu jël 1 million chaque chaque weer mu jël 30 millions ci mairie Dakar. ni damay jënd dugub ak ak ceeb. après dugal ko ci poosam dem def faj ci ay soxlaam. d'accord d'accord léegi loolu war na tax xalifa Abdou. waaw dinañ dinañ dinañ ñëwaat ci loolu. njub gi la ñuy taxaw ba tey. parce que njub gi da nga jàpp da nga ni ma hmm. dafay continuer. mais njub gi naka lay continuer ani CREI. mais CREI mi ngi fi. mais ani ñi nga xam ne ñoom lañ ci tuddoon ñëpp ani Ousmane maître Ousmane Ngom. mais defal ndànk defal ndànk. c'est que ani yeneen dignitaires yi ani Abdoulaye Baldé. kan moo kan moo tudd kan moo tudd mais Abdoulaye Baldé dossier ngi foofu. mais ani ani. non déedéet defal ndànk defal ndànk defal ndànk ah. c'est que bu ñu indi xaaju bu ñu indi ja lënt-lënt ci boppu nit ñi kër yi ñam doon entendre mi ngi leen di entendre ba léegi de. <laughs> non c'est. c'est que déedéet. CREI CREI enrichissement illicite ñam doon entendre ñu ngi leen di entendre ba léegi. procureur spécial. waaw waaw. nga xam ni bokkul sax ak ak ak juridiction yi nga xam ni moom lañ fi. xam loolu dañ ko fay a a gaaw. mais la. dama ni la bu amee juridiction spéciale mm-hmm. ak même bu fekkee bëri nañu ko mën a sikkal mm-hmm. mais bu ñu waxante yàlla nga xam ne ñii dañuy jaar fii ñu àtte leen ñii jaar mm-hmm. ñu nekk 27 xaw ma 25 personnes waaw mais na gën si waroon na fekk ñi tamit dañuy dañuy dañ mas nga gis procureur publier liste 25 personnes nit ñi ñoo doon def seen i estimation non yow ah si procureur Ndaw ma ni mu limul cinq personnes mais muy wax na ko ñëpp dégg ko. waaw mani nit doo xëy rek jàpp ko Karim Wade toog nañ attaque lu genn wàll soog koo jàpp mais nit ki mënatoo ko tuumaal ci ay tuuma bu ñu jëlee exemple bi nga wax nii Khalifa Sall enquête nañ attaque genn wàll at at lu mat at ñu koy soog a jàppi mais mënoo xëy xëy rek dégg Papa Ngagne am na mbubu bu rafet rek nga ni waa non Papa Ngagne am na mbubu bu rafet créé na ko mais pour lan dafa am yoon. nit ñi amuñu droit ak koo mën a doon loolu mooy créé ah loolu mooy enrichissement illicite aussi loolu loolu la loolu moo lay wan ni lu warul taxaw la loolu moo lay wan ni la bokkul sax ak lu war a am ci réew non man ni gisagoo yow yow aveu bi nga def ni mooy wane ni créé amul place ci suñu juridiction waaw mais dafa ndànk mën na évoluer kenn contrôle na évoluer mën na évoluer ah parce que évoluer après ya déedéet mais bi ñuy ñëw loolu moo fi amoon loolu moo fi amoon pour régler problème yi mais tribunal bii nii sax mais démocratie bi dañuy ñaan mu avancé amul dara lu nit di defar lu yemb dañuy jàngat comme ni mu jàngate acte trois ba di évaluer xool gestion maire yi ba gis ay euh, gis ay luubal ay jubadi ñu koy corriger mhm. noonu la dëkk di avancé amul nit ku mën a indi lu yemb mhm. après dañuy saytu di xoolaat di xool li ci jubul ñu jubbanti ko li ci baax ñu buñ ko mënee yokk ñu yokk ko li ci baaxul ñu dindi ko mhm. noonu la yëf yi ma man neewuma benn yoon CREI dafa war a continuer. d'accord léegi. ci njub gi nga ni ci la ñuy sax. Mhm. OFNAC wanewul yoon wi. lu tax président de la république dafa taxaw yéen ñëpp ngeen wax ko nag pour ñun la CREI na ci ñi la dem ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekkoon. Mhm. gis nañu ne au moins CREI sax am na effort yu mu def. Mhm. malgré bu fekkee jurul lu ñu mën a téye. mais OFNAC. dafa am ay rapport yu mu def. absolument épinglé ay nit yoo xam ne ñëpp xam nañu leen. ci ay direction générale mujjul fenn. li ñu gis moom mooy au lieu que mu mujj fenn ka nga xam ni moo fa nekkoon lañ fa jëlee déedéet neel mu jógul fenn déedéet Papa ngañ wax dafay leer neel mu jógul fenn <laughs> mais yow sa bopp dégg nga procureur bi muy wax affaire xalifa moom ci boppam mu ni jot na lu toll ci fukk ak ñaar bu ma juumul fukk ak ñaari dossier jot na ko lu jiitu l'affaire xalifa jot na ko lu jiitu muy jot l'affaire Khalifa. si déedéet li ngay wax nag yow tamit. Ah, bàyyi li ngay wax bàyyi li ngay wax. bu loolu l'affaire Khalifa présidence la jógee dem ci nee naa la affaire Khalifa enquête nañ ci lu mat at. waaw nee naa la dagg nañ xaalis bi lu mat lu mat fukki weer ak fukki weer ak benn wala juróom-ñeenti weer naa nga waxul. Mhm. moom bi mu décidé yëf yi siiw la siiw te du moom rek la rapport bi topp mu ngi topp ñeneen ñoo xam ne dañoo décidé suturaal seen bopp moom moo génne boppam xalifa moo génn ni dañ maa bëgg a jàpp ci rapport te xam nga rapport bi dafa am rapport contradictoire moom tontu woon na lu tolloo ak at donc li nekk ci rapport bi ump ko moom moo décidé dem wax sénégalais yi ni que non ñu ngi may waaja jàpp parce que dafay politique léegi nag réew mi bu fekkee ni que dañoo egg fenn foo xam ni ku def dara bu ñu la bëggee jàpp nga ni noo candidat laa wala dama dama leen kii loolu loolu du yëngal président ci li mu nekk jub gi moom dinañ ko continuer amul dara luy tax ñu dellu gannaaw loolu mooy benn rapport OFNAC procureur nee na fukki rapport ak ñaar yëpp ñu ngi koy instruire division financière du gis ngeen fi ku bokk ci ñun jóg di commencé di ah, dajale ay mbokkam mm-hmm. da ngeen a xam ndax dañ ko woo wala woowuñu ko léegi man nit ki décidé suturaal boppam man dinaa wuññi suturaam fii ci télé bi naan ñi ngi topp diw ñi ngi topp diw du sama cër mais ku wax ni ko jaarul yoon nit ñi dinañ la tontu xalifa moo décidé en tout cas monsieur le ministre li nga xam ne moom la ñu gis rapportu gis ci mën ci teg seen bët mooy li ñuy wax reddition des comptes. non non danga rek ñi ci dem kaso. ay opposants lañu danga naan ñi décidé no bul wax loolu. si bul wax loolu. du ñun am na ñu bokk ci ñu nekk ñu fay. am na ñoo xam ne ñu ngi leen di traduire euh, chambre. commission discipline waaw parce que loolu li ñu def loolu la tollool. parce que tamit nit ki dañ lay topp en fonction de li nga tollool am na say moroomu journaliste yu bind. ne que Kaolack ubbi nañ fa information judiciaire ci ay suuf yu ñu jaayoon ñii ñu ngi leen di toppil ku ci nekk par rapport ak li nga def xalifa moo jël 30 millions par mois xalifa moo indi ay fausse facture trafiqué ay facture indi ku ci nekk dañ lay topp dañ lay topp ak li nga tollool c'est que nag comme ñoom seen cër lañ nekk dañuy politique bu leen neexee ñu politique mais ñun amel nañ askan xalifa moom ambition ci législative bi xalifa moom ambition ci présidentielle. waaw mais non c'est que. yow fii barki démb. barki démb fii. am na ku fi toog ku tudd Cheikh Bamba Dièye toog wax lu ñu neex de pourtant mi ngi doxee ay soxlaam. Mhm. kooku bu ñu koy tontu ci politique lañ koy tontu gis nga bu ñu eggee ci wàllu politique pas politique parce que dugal nañ ci leneen déedéet lan lañ dugal nañ ci bi nekk Ndar di wax naan ay dañ dafa dafa dafa ay ay jalgati ci carburant ak yeneen yoo xam ne ñu ngi koy wax na ko porter plainte non mais xam nga loolu aussi man waaw man ak koo mën a doon boo mënee def naa jalgati bu subaa bu ñu xëyee ci juge bi lañ jubal parce que di nga indi du maire Ndar wax na ko Cheikh Bamba Dièye lu mu tontu bu fekkee du dëgg na dem ci yoon meeru ndar bi ko jiiñ dina génne ay këyit wala mu bind ni ko baal ma àq maa la tooñ yëf yi moom yomb na ku ñuy jiiñ loo deful mais nga dem ci yoon man de ku ma jiiñ loo xam ni jàpp naa ni defuma ko du ñu tëdd ci lal ci utuma huissier mu constaté ku ñu dem ci juge te doomu aadama du wax ba ma retirer sama plainte parce que doo jël wax ju la neex teg ko ci kaw nit après mën a dem tëdd sa kër nelaw man duma ko nangu mais bàmba Dieye mi ngi wax lu ko neex du pourtant mi ngi doxi dem ñibbi mi ngi doxee gum. ah mi ngi doxee gum mais bu defee lu wàcc yoon. ñu jàpp ko en ah. doxee gum non bu defee bu defee bu defee. mi ngi doxee gum du mi ngi def mi ngi wax ah, ñun du ko xam nga du mi ngi dem mi ngi dem mi ngi dem sama bàjjen Aïda Mbodj du mi ngi opposé wu. elle dit ce mais nag munoo wax ni que da ngaa bëgg a yor mi après ñu naan ñu ay contexte électoral dem naa ba dégg Babacar Gaye mu wax ci RFM mën naa ko wax ak seen menkil ni ko non bu élection de jub si dafa war a am trêve judiciaire

politicien bi ak ku politikul ku ci wàcc yoon yoon daf la war looloo taxoon ñuy xeex ba mu jaral ñu suñu bakkan loolu ngëm-ngëm la fan lañu teg ak fan la ñu wéer ni que boo nekkee homme politique bu élection jubee boo defee ba buñ gisee jubati ci yow duñ la dañuy bàyyi ba élection yi romb parce que potentiel candidat nga politiciens ñoo moom réew mi wala ñun ñëpp a yem ca kanamu yàlla ak fii ci kaw suuf bu ñu bëggee réew mi ñu teg ko ci dëgg ci njub ak ci ngor waaw comme xam ngeen ak a bokk comme xam ngeen ni ñëpp a yem c'est bon ñëpp a yem na ngeen ko teg ci yoon aussi ñëpp a yem ngeen ko teg ñëpp xam loolu xam nga nañ ngeen ko teg ñëpp xam ne li ngeen di wax ak li ngeen di jëf méngoo wax ji changé na parce que dañ daan wax naan noo xalifa kii benn ndey la kumba am ndey la c'est que waxaguñ ñu koo xam ni ci ñun la bokk am dossier sa jàpp ñu ko amul d'accord alors monsieur le ministre ñu ñëw ci beneen ponk président de la république euh, yuuxoo nañ ko France mm-hmm. yuuxoo yoo xam ne li mu symboliser dafa bëri. Mhm. parce que bu fekkente ni président de la république nga. Mhm. nga dem fu mel ni France nga xam ni président yu bëri ci Sénégal jaar nañ fa yuuxoo yooyu dab leen. Mhm. mais koo xam ni vraiment ci ci mandaam daanaka soriwu ci. nan nga tekkee yuuxoo yooyu ndax jàppaloo ni foofa ca France. xëy na dañ ko mënul def fii ñu am boobu liberté ak seen démocratie fii ku ko fi defoon dootoo ko defati. Ah. loolu lan nga ci mën a jàngat ci loolu nga xam ni xew na foofu ci président de la république. ci damay wax objectivement. waaw ci ku. yëngu ci politique ci lu yàggul yàlla rek a tax may wax yow mi papa ngañ bu la neexoon tey suba France am nga fa juróomi soppe yow mën a woo ni leen dem leen defal ma lii waaw am déet nga teg ko ci dëgg ak nga teg ko ci lu dul dëgg mhm. am nga juróomi nit yoo xam yoo xam ne boo leen woowoo ni leen juróomi nit mën nañoo tax ñu nguufaan président évacuer ko yóbbu ko ndax sécurité xam nga juróomi nit mën nañu perturber benn séance bu mel noonu seede seede dafa baax c'est-à-dire monsieur le ministre man dégg juróom keneen ni juróom ñaar c'est-à-dire li may wax nii li may wax ni Sénégal du lim bi de mbir mi bi acte wax la waaw li may li may wax ni sénégalais yëpp mën nañ ko vérifier cest à ku dem ci biir internet xool ci site yi fii nii di nga gis film bi juróomi sénégalais yu taxaw yor seen sifflet di sifflet. <laughs> c'est yàlla am nañ ci droit c'est compliqué quoi. c'est juróomi sénégalais ñu jël président. déedéet évacuer ko pour mu dem mesure de sécurité est-ce que gis nga foofu fu ñu jële président c'est que c'est que réew mi egg na fenn foo xam ne wax lu dul dëgg wala sos wala diffuser ay rumeurs. defe naa war nañu romb loolu xam nga buñ dee wax loolu. ba yàlla génne vidéo bi ba yàlla def benn sénégalais poste vidéo bi ñoom seen bopp ñu posté ko ñu mën a gis ni que ci bunt bi lañ toll. ku xam résidence bi xam ne entre bunt bi ak fa kër ya nekk au minimum mat na 60 mètres loolu ana évacuer président. léegi pare nga. gis nga ñiy wax loolu. d'accord non xaaral ñiy wax loolu. yàlla dafa indi lu leer. te nit ñi dañ koy fàtte gis nga ñuy wax loolu di wax ay Bamba di wax ay ay ay ay ay xalifa ñoom ñoo toogoon ci plateau yi fii nii bu référendum bi jàllee ñii dañuy daganal góor jigéen ñii toog fii nii ci plateau yi di ñu ŋàññi tey nan ñi xamuñu dara ñoom ñoo doon wax loolu yàlla atte ñu référendum bi am na tey waaw ñi ngi dawal at daganaluñ góor jigéen ñu bëgg a jël ñoom ñiy wax loolu boobu ñoo doon wax ni que président amul gis-gis ñiy wax loolu ñoo doon wax ni que ñii réew mi duñ ko yóbbu fenn boobu ba léegi nag yàlla mi ngi ñuy àtte hors sujet non hors sujet wu ma non c'est pour te dire moo tax ma ni la moo tax ma ni la évacuation bi ngay wax waaw amul parce que loo xam ne manifestant yu taxaw mhm. ci bunt mhm. foo xam ne ak fa président di nekk di di réunion mat na 60 mètres lan la ñuy évacuer président ci juróomi nit waaw monsieur le man damaa dégg président ci RFM mhm. mu ne nañu xam ne ñiy def lii mënuñu téye géej gi ak seeni loxo waaw mooy tontu de moom président yemul foofu mooy épiphénomène la waaw moo wax loolu de moom président de la absolument juróomi nit waaw bu demee bay yëkkati tontu président de la république neex na gëm loolu yàpp nga ni juróomi nit la mais parce que dañ ko cee laaj président non ca séance ba la taxaw pour tontu ci acte bi déedéet déedéet déedéet ki teg loolu ci rajo bi tegul voix wu président. dama oh. lay wax nan la demee oh. ca yàlla tax. dama lay wax rek pour ñu xam. ak ñu ñu seetaan xam non déglu bëgguma nga egg foofu. non xaaral bëgguma nga daanu su ñu teg voix président. non ko enregistrer. non mën nañ ko parce que. moo tontu. moo ne ñii fii di. président ay militant am la doon wax géej gi mënuñu ko téye ak seen loxo. président ay militant am la la du dara. président moo tontu ci loolu. non président dès ce France la doon recevoir. section yi nekk France yëpp la doon recevoir muy wax ak ay militants ni leen concentré wu leen ci élection yi parce que ñun ñooy majorité bu leen topp ñii nga xam ni dañuy jël seen ñeenti nit juróomi nit taxaw fii nii defe ni que mën nañ arrêté géej goo xam ni mi ngi ñëw ak seen i loxo géej bu ñëw lay tontu juróomi nit lay tontu. waaw mais bien sûr parce ay ah, militam lay waxal ñu ah, interpellé ko ci. c'est bon ay militam ah, mais vidéo yi c'est disponible xam nga li ngay xam nga. d'accord mi ngi nii nekkul nii. d'accord vidéo yi c'est disponible Sénégalais yëpp mën nañ ko seetaan. d'accord boo demee juróomi nit ngay gis ñu taxaw ci buntu résidence bi toog ba ci yàgg joxe départ comment ak naan ko ñuy wax ngay dégg commencé filmer mu commencé mu commencé siffler loolu moo am. lool mu méngoog dëgg. président Wade waxoon na ko fii. bi nit ñi di dee fii mu naan leen ngelaw la nañu ah, doxal mais fii nit deewu fi. waaw waaw d'accord. Mm-hmm. fii nit deewagu fi te gisagoo fi ku ñu jël àqam ak yelleefam. Mm-hmm. dañuy wax rek kum neex na ngay wax rek. Mm-hmm. mais bari na nee naa la ñi nekk noonu di wax ñoom ñoo fi waxoon dañuy daganal góor jigéen. waaw ah, eggaguñ ci ah daganal guñ ko xamuñu fan lañ ah, ci jëm en tout cas waaw déedéet. non yaa ngi fi maa ngi fi. waa déedéet nañu dem non. nañu bàyyi avenir mu jugé ñu heure bu président voilà heure bu président amee opportunité bi da koy dégg mu ni tant que maa ngi fi insha allahu rabbi loolu xalaatuñ ko Sénégal d'accord bu fi nekkulee nag nekku fi d'accord keneen ki fi nekk responsabilité la d'accord Y en a marre 7 avril neneen dinañ wàcc doyal nañu ci nii nga xam ne noonu la Macky Sall di doxale mhm. dafa mel ni sax dafa bëgg a soppi Sénégal def ko Gambie ndax loolu du du du du rawatina yow ci double casquette ah nga. nga may moom monsieur le ministre. waaw mhm. ministre de la jeunesse nga Y'en a marre ay ndaw lañ. Mhm. tey ji am na taxawaay boo xam ne boo ko taxawoon ci ndaw ñi. Mhm. du ñu dem ba taxaw. kooku mooy benn. ñaareel bi est-ce que du échec ci seen vision ak seen gouvernement li ñu doon yaakaar ci yéen ci doxalin. ci soppi ak rupture benn amu ci. waaw c'est que man duma évaluer suñu politique de jeunesse ci Y'en benn. ñaar bu fekkee ni que ci représentativité la papa nga yàggul dara te ñi Sénégal ñan ñoo bëgg représenté ndaw ñi lu mat junniy ndaw présenté wu am ñu gagné parce que ñu ëppalee voix bu fekkee ni que damay évaluer ñun li ñuy def par rapport ak ndaw ñooñu laa koy évaluer mooy le conseil national de la jeunesse Y'en ay ay ay xarit la yu ànd comme nekk association privée di défendre di am am seen ngëm-ngëm am seen doxalin loolu mooy benn ils ne représentent pas la jeunesse sénégalaise et ils ne peuvent pas parler au nom de la jeunesse sénégalaise xanaa tey xanaa tey bi ngeen bokkatul jimukaay déedéet voilà non tey pour yow fii la toog mu toog ma wax ko ko ma ne ah. ngay représenté waaw xanaa tey tontuwul ah. déedéet déedéet non xanaa tey la c'est que bu xeex jotee association yëpp nee naa la 8600 association de jeunes moo fi am yu ministère de l'intérieur reconnaître association yooyu bu élect dañuy dem élection pour fal ñun ñi ñuy waxal ci ndaw ñi muy conseil national de la jeunesse ce qu'ils disent n'engage que leur personne nee nañ dañuy wàcc am nañ sañ-sañu wàcc nañ déposé dem wàcc ñu dem defi lu leen neex wax lu leen neex bu defee lu leen neex ñun dinañ leen wax li ñu suñu xalaat bu ñu waxee lu leen neex ku bu fekkee ay sos la ñu yóbbu leen ci yoon bu fekkee seen i xalaat la ñu tontu leen ci xalaat waaw discours bi yaa naa maar discours bi de moo gën duñ fi duñ ko fi defee yaa naa maar duñ fi génne duñ bu ñu fi fay dinañ ñu fi fay boobu ngeen di opposé toujours ñi di opposant yi man li ma wax voilà bu ñu wàccee ñun la jàkkaar loolu non man li ma la wax nee am nañ sañ bu ñu wàccee fi te loolu vraiment du seen wax man li ma tontu koy sénégalais dégg nañ ah non c'est vrai loolu laa wax tontu bi nag nañ ci sax quoi non mais ci laa sax ci laa laa mas a man du ma changel kenn diineem du ma changel kenn tarixaam du ma changel kenn ngëm-ngëmam mhm. mais nañ ko teg ci yoon parce que nag yoon moo ñu tënk ñun ñëpp mhm. man loolu laay defaan léegi ñoom bu ñu waxee ñu ñuy politique am nañ droit tontu leen mhm. bu ñu defee li ñu def méngoowul ak yoon wala ñu teg ko ci loo xam ne du dëgg ñun am nañ droit dem ci yoon nañ ko comprendre noonu rek mais ñoom am sañ am nañ sañ sañ sañ mais li ma nanguwul mooy nga ni il représente la la jeunesse Hmm, pour yow. tey non ils ne ne peuvent même pas représenter la jeunesse. ah d'accord bu ñu génnee di nga xam ba xam représenté nañ jeunesse. mais nañ bu ñu taxawee nañu taxawee woon. mais nee naa la di nga xam ba xam. nañu taxaw ñoom représenté nañu jeunesse wala représenté wuñu jeunesse. Papa Ngagne yow xam. cest à li ma la bëgg a wax mooy. Mhm. yow est que ci sa politique sa politique gu jeunesse en tant que mhm. ministre. Mhm. jeunesse ak emploi. ndax jàppaloo ni lajj nga foo xam ni tey mënoon nga fa taxaw. Y'en a marre bu dul dara. du ma ni ay ay nit lañ ñoo xam ni ñu taxaw lañu ñëpp xam nañu leen. waaw non bu ñu représenté wul dara fii ci Sénégal doo dégg ñu ne leen leen ci beneen réew. pour soxla seen ngëm-ngëm ak seen xalaat. fii ku fi am ay xaritu journaliste c'est que loolu dañ ko war a régler Sénégal mooy la prise de parole kii wax kan la ak ci turu kan lay wax non xaaral rek. tey la la intéressé loolu. déedéet tey bi nga nekkee au pouvoir. déedéet nga nekkee mais allez man avant bu ma daan wax dama naan sama parti laay waxal. parti politique ñëpp xam nañ ko yoonu ko tënk. association de jeunes y a 8700 associations de jeunes journalistes yi demuñu la c'est que bu fekkee nit ki am na ay xaritu journaliste mën a wax ñu koy déglu. ça veut pas dire ni qui représente la sensibilité loolu mooy benn beneen bi suñu politique de jeunesse ma man am naa fierté wax ci du ma ni matale nañ lépp de je la le dirai pas jafe-jafe bi gën a metti actuellement ci réew mi mooy liggéeyu ndaw ñi loolu mooy dëgg c'est ça la vérité. Euh, loolu tey nga koy doog a wax. waaw déedéet. leneen nga daan wax mais déedéet. président de la république def na lii def na mais déglu ma ah. mais déglu ma jafe-jafe bi gën a metti ci réew mi mooy liggéeyu ndaw ñi. Ah, mais lu tax ñu am ko lu tax ñu am problème mhm. liggéeyu ndaw ñi. Mhm. mooy téeméeri ndaw yoo jël ñeent fukk ak juróomi amuñu métier. Mhm. loolu mooy dëgg. utal liggéey ko amul métier dafa jafe bu dee pour saafara jafe-jafe bi la président li mu teg xel mën na koo nangu. njàng mi mu kawe mi ak mu diggu doom bi ak enseignement professionnel bi méngoowul ak liggéeyu jamono firnde bi mooy nit day génn université amul métier. formation yi fi am ca ca xale yi jàpp ni que formation diplômante la day ànd ak qualification dañuy nangu ni ko am na mais ay filières yu saturé la marketing communication banque finance ñëpp mënuñoo def loolu. li ëpp ci ndaw ñi loolu la ñuy def. Mhm. jafe yooyu la am loolu moo indi président ni nañ tabax ñaari université yoo mhm. xam ne bii ci wàllu mbay lay li yëngu. Mhm. bii ci wàllu nouvelle technologie xel mën naa nangu ni ko ku jàng mbay doo chômer. xel mën naa nangu ni ko jàng nouvelle technologie doo chômer. ndax mooy ñëpp duñu egg université. mu ni nañ tabax 17 lycée technique. formation professionnelle bu fekkoon ñetti place la tey mi ngi ci juróom-ñetti place ci juróomi at ñu ful place yi mooy est que dimbali ndaw ñi nga xam ne egguñu université ñu mën a am formation professionnelle formation professionnelle créé 34 BTS du ma ni financé nañ ñëpp mais ñi ngi def suñu kéemtulaay kattan ndaw bu indi projet boo xam ni remplir na critères yi am nga financement loolu dootul laam-laamee d'accord mais néew ma matale nañ lépp et puis am ay yu mel ne ay domaine agricole ay papes ñi ngi def seen kéemtalaay kattan mais saafara wuñ lépp mais borom xel war naa mën a nangu ni que ñi ngi def suñu kéemtalaay kattan président mi ngi def kéemtalaay kattanam su ma la mhm. mhm. ba muy diggee cinq cent mille emplois xamoon na ni mënta nekk dafay naxe mais ñu ngi ci trois cent mille emplois non dama li ma bi mu koy diggee waaw ak li ma wax nii yëpp waaw kon mooy bi mu koy wax moom xamoon na ni lii mënul nekk mi ngi nax askanam ak li ma la wax nii yëpp fii ñu toll nii ñi ngi ci 300000 emplois bu chiffre yi génne. 300000 waaw waaw wax ko ñu ngi ci 300000 waaw mais xaaral 500000 emplois la. fexeel ba bu ci boole emploi wu GFM. déedéet ah bu ci duñ ko ci boole. non ko ci boole li nga lii Papa Ngagne non secteur privé ci boppam. non loolu ngeen war a bàyyi. mais yéen attends ku président bu leen nee. dina recruter 500000 jeunes ci fonction publique loolu président mënu ko. Ah, parce que fonction publique ci boppam rek. léegi ngeen bëgg a làq ci privé bi. mais attends. ah Massamba bu créé benn entreprise am jël ci ñaari nit ngeen dañ président mu ko créé. papa ngañ boo waxee noonu. <laughs> non attends. emploi yi ci privé bi lañ ko gën a yaakaar. emploi yi ci privé bi ko gën a yaakaar. malgré 300000 yi nga wax président malgré conditions yu difficiles yi. mais absolument conditions ci environnement boo xam ne bu jafe la ci taxawal fi entreprise. déedéet déedéet. ah bu fekkoon conditions yi dafa difficile du ñu fekk croissance bu jógee président bi muy ñëw croissance 1.6 la fi fekk tey ñu ngi ci 6.7 ci deux années successives loolu mooy économie ñi xam économie te mën a ñi ñi ñi bëgg a dégg mën nañoo nangu ne que un ku jëlee croissance 1.6 yóbbu ko ba 6.7 am na ay emplois yu créé wu du ñu nëbbante ñi ngi ci 300000 500000 yi ci ci juróomi at ci juróom-ñaari at la ko diggee woon des na ñaari at. nañu am yéene bu rafet bu fekkee cinquante 000 lañu egg man du ma am kersa ñëw ni 450 000 lañ egg mais dama ni ku gis mbay mi xam ni luñ doon bay benn ñu ngi koy bay ñaar ay loxoo koy bay ci emploi yooyu compté wuñ ko jeunes yi ñuy financé yi FONGIP di financé ANPEJ leen financé compté wuñ leen emploi yi ñu compté mooy secteur privé bi ngay wax ak fonction publique mooy fii ku fi signé contrat dañ koy yóbbu inspection du travail loolu moo am. ça ne veut pas dire ni que. président comptabiliser ko. ah mais bien sûr. parce que parce que bu bu fekkee GFM ngay jël. Mhm. mais quand même ci économie nationale la nekk. c'est-à-dire tey bu seen publicité yi doxul woon bu ngeen liggéeyul woon bu bu bu bu bu yenn conditions yi réunir woon du ngeen fay salaire. Mhm. mais état bi loolu moo tax muy investir di pousse privé bi président buy tukki jël waa secteur privé bi yóbbu leen pour yokk seen i lëkkaloo pour ñu gën a am doole pour gën a mën a créer emploi mais loolu la koom-koom mooy créer emploi jafe-jafe bi ñu ci am nee naa la xel mën na ko nangu ñu ëpp ci ndaw ñi bëgg a liggéey amuñu métier d'accord d'accord monsieur le ministre def suñu kéemtalaay kàttan ñu tuuti ci wàllu politique ak seen parti. Mhm. parce que dama ci gis ay comportement yu doy waar yoo xam ni man mënu ma ko sax comprendre ci parti bu ñu ne am na autorité. Mhm. parce que président daje na ak yéen fële ci jam ñaajo mhm. wax ak yéen ah, ne leen yéen waa COJER bu yéen ndaw ñi. bàyyi leen xeex bi bàyyi leen xuloo bi. def leen nii def leen nale. interpeller leen ci. mais monsieur le ministre tey li may gis. ci diggante Mariem Babou Thérèse Faye. ñu la ci tudd yow ma mbay ne yaa ngi ci ginnaaw Marème baabu boobu ci boppam. Mm-hmm. attends est-ce que loolu mooy ku respecte hiérarchie. est-ce que loolu mooy discipline ci parti. fu ñu dajee ñu xeexoo ñu rayante ci seen biir. waaw mais mais mais mais xam nga ci politique lañ nekk. te loolu président i Sall bi jiite parti bi mu mënu ci dara. déedéet xa bon ay ndaw lañ loolu mooy li njëkk ci politique la violence moom ak fu mu mën a fe nekk mu nekk ci ñun mu nekk ci ñeneen dañ koy ñaawlu du luñ mën a rafetlu. niñ koy tudde tey diggante Marème baabu ak Thérèse noonu lañ tuddee noonu lañ ko di ma naan ba nga ni dañ ma ciy tudd mhm. noonu lañ ma doon tuddee ci diggante Thérèse ak Abdou Mbow mhm. politique la ay ndaw lañ Thérèse mooy responsable COJER maam Marème dafa bëgg li mu nëbbu ko wax na ko mhm. mais li am tey dëgg mooy Thérèse moo koy jiite nag fi mu deel nii jàpp naa ni ku ci nekk am na rôle boo ci war a jouer muy responsable ak ñëpp. mais du suñu parti rek moo am violence du ñun rek du man rek bokkuma ci bokkuma cee ko gën nangu naa mais ay ndaw lañ. ca jàpp naa ni ndaw ku ko gis gis xadaram lu ñuy ñaawlu la. wax dëgg yàlla ku ci nekk mën ngaa def sa liggéey ci wetu président. ca doo yàqal keneen ki. parce que defe naa séntu asamaan jarul jarul buuxante. COJER am na COJEM am na jeune bouclier de Macky am na keneen am na ku d'accordul ci leen nga dem defi sa yëf yi mais yow da ci am da nga ci am ci ci ci ci yooyu. non non man bu fe nee naa la bu fekkee suñu parti rek la am na lu mat onze organisations de jeunes. yoo xam ne ñoom ñëpp jàmm laa seq ak ñoom. waaw ah yëpp ñaar lañ ciy dégg mooy ñaar ñii ma la wax nii ñoo ciy rayante. ku ci def sa ku ci créer sax sa sa sa sa conférence wala deneen ñeneen ñëw. Mhm. sànni fa ay non loolu dañ koy ñaawlu amul kenn ku mën a rafetlu loolu c'est-à-dire man du lu may cautionné et wax dëgg yàlla ñi ngi may tooñ ci laay yem. ñi ngi may tooñ mais ñi ma doon tooñ naan ma yaa ngemb Thérèse pour mu xeex du mbaw tey xëy na tey ñoo ñu ñoo may wax yaa ngemb ma ngemb ma kenn ñëpp laa yemale. Mhm. man ndaw ñëpp laa yemale bu dee ci politique suñuy ndawu parti bu dee ci ministère bi ndaw Sénégal yëpp laa yamale mhm. loolu bokk na ci li tax yenn saa suñ ndaw parti di ma mere ba di ma ŋàññ naan ma yëf yi yow da nga koy séddale ñëpp mais parce que ñëpp a ci am cër li politique yi li ma seq ñoom ci politique maa ngi koy def ci politique mais bu dee ci wàllu ministère bi ndawu Sénégal yëpp laa yamale bu dee ci wàllu interlocuteur ministère bi duma wax ak sama ndaw waa parti ndawu conseil national de la jeunesse laay wax que nag ñoom ñoo génn ci élection yu démocratique ñoom la seen i morom fal ni ma ñii nga war a waxal boo loolu la ñuy xaar ci mais ci loolu laa dëkk ci loolu laa moo tax xëy na may am yenn jafe-jafe yi mais je parce que ki ma yónni loolu la ma sant d'accord mhm. léegi monsieur le ministre bi dañuy ñëw ci kaw Bamba Fall mhm. euh, juñu nga ko léegi violence ci parti yëpp lay am mhm. violence bu am ci parti moo ko yóbbu kaso euh, bu ñu ñëwee ci taxawaay bi nga xam ni moom la ci procureur parquet taxaw am sax ñu njort ni euh, parquet mooy loxo état du Sénégal mooy loxo mm-hmm. Macky Sall mm-hmm. taxawaay boobu mu taxaw ci ko xam ni LPM liberté provisoire am taxaw na mm-hmm. nga pourvoi en cassation mu desaat ci kaso bi ndax du gën a jox dëgg ñi jàpp ni procureur dafa nekk pour li neex parti bi nga xam ne moo nekk au pouvoir jëf ju mel noonu yoon moo ni le procureur c'est le maître des poursuites loolu mooy benn ñiy wax ni que procureur mooy bras armé Macky Sall ñooñu boo seetloo ñooñu ñooy wax ni que justice Sénégal dañ ko manipuler yëfi Bamba Fall yi tey firndeel na ni que wax dëgg yàlla yoon am na ci réew mi parce que yoon ci seen biir kuréel seen bopp tey déggoowuñu kii neen kii may na ko liberté provisoire procureur dafa joxe appel. juge bi moom jàpp na ni war na génn. juge bi jàpp na non ah, soo ko bëggee expliquer noonu. mais loolu moo am jàpp ni. c'est que déedéet. leneen la wone. dafa wone leneen. non man tamit. waaw man tamit. li ma ci li ma ci gis. ca ma jàpp ni li ëpp ci sénégalais yi war nañ ko mën a gisee noonu ñii di wax tey ni que procureur bras armé Macky Sall la. ñoo doon wax démb ni que justice amul Sénégal. que justice dañ koy manipuler tey. tey la gën a feeñ loolu. non mais tey non mais tey. tey la gën a feeñ loolu mais ki ki ko may liberté provisoire du juge. waaw juge la de. ki ko xañ lan la. ma ma ni ki ko may. ki ko xañ mooy procureur. waaw mais man ki ko may juge la. ki ko ko xañ mooy procureur. kooku kooku ministre de la justice lay déglu. léegi procureur. mooy patron. procureur ministre de la justice mooy patron. waaw ma APR la bokk. ministre de la justice euh, procureur procureur. waaw. doole bi mu am ay député ñoo ko voté assemblée nationale juge bi doole bi mu am ay député ñoo ko voté assemblée nationale Khalifa Sall ñu dellu si waat ministre de la justice doole bi mu am. président de la république moo ko jox. parce que yoon moo ko jox. Ah, président de la république waaw. Ah. Khalifa Sall. Uh-huh. juge bi bi mu koy tëj. député yi ñoo voté ci ñoo voté loi. loolu leer na li ngay wax non non député yi ñoo voté loi. Uh-huh. ni ku def détournement de deniers publics mandat de dépôt. Uh-huh. man juge bi juge d'instruction bi waxu ko de créé wu ko de. moo tax ba mu bokkee ca chargé. waaw procureur wax ko ci lañ xamoon ni Khalifa day dem kaso. ah mais loolu moo am. au moins tuuma yi am na. Mhm. donc ñii di wax tey ci wax Bamba bëgg a wax ni ay procureur ñooñu ñoo doon wax ni que justice Sénégal amul lépp makee ko tënk tey am na juge bu ñu nañ libéré Bamba Fall procureur nii. duñ ko libéré duñ ko libéré. procureur yoon may na ko loolu nañ bàyyi yoon rek mu def liggéeyam. yow jàpp nga ni loolu dafa dafa dafa nekk lu positif. ci suñu justice su réew. pour man c'est contraire. no parce que parce que parce que yow da jàpp ni que juge bi may na ko ko. waaw. procureur daf ko waroon a bàyyi. waaw xam nga procureur ci ñaata yoon lay opposé wu ci liberté provisoire man barki démb rek am naa xarit boo xam ni koo xam ni dama ko xam mu nekk ci ay jafe-jafe yoon ay avocat dem nañ ba woo jabaram ni ko jëlal taxi procureur opposé wu sénégalais boobu noonu moom kenn mënu koo indil fii ci tele bi. nañu bàyyi yoon def liggéeyam voilà hmm. léegi monsieur le ministre juróomi at def ngeen ko hmm. euh, ñu koy xayma nag boo ko hmm. doon tënk ci résultat lan ngay wax si ci lu gàtt rek s'il vous plaît parce que xam naa ne bëgguma nga xabaabal ci nga tënkal ma ko juróomi at yi di sant yàlla d'abord et peut-être di di sant yàlla bu baax parce que may nañu kàttan bu ñu toogee fii tey di wax ak sénégalais ci lu suñu candidat suñu leader waxoon ak ñoom. du ma ni lépp mat na. du ma ni lépp baax na. mais ku waxal yàlla rek amul secteur wala barab booy jël ci réew mi bu jógewul fii avancé as as tuut. jafe-jafe yi nag am na waaye ku gis li muy def ci fu nekk. di nga xam ni que yéeneem ci réew mi. wax dëgg yàlla yéene ju baax la. yàlla rek mooy matal. d'accord bëggoon nañ am autosuffisance en riz 2017. ndax mhm. dinañ fa egg wala duñ fa egg li may jàpp mooy euh, jóge nañ ci trois cent cinquante mille tonnes. Mhm. tey ñu ngi ci neuf cent mille tonnes donte million cinquante mille tonnes mooy mooy yéene bi. Mhm. loolu mooy euh, objectif bi. ci wàllum santé yé objectif bi mooy réussiroon couverture maladie universelle tey jii nii. même bu fekkee egguñu fa fajuñu sénégalais yëpp ay junni junni sénégalais yu dul woon faju ñu ngi faju ci wàllum social jàpp naa ni que bu sañoon ñi ñàkk ñëpp bénéficier wu ci bourse yi mais dañuy jàpp ni que mille famille tey ñu ngi ciy am ci amuñu ci woon donc 300000 yooyu yokkute la jàpp naa ni que jàngalekat yi njàng mi donte lépp baaxul mais am na astan liggéeyu ndaw ñi financement yi du ma ni financé nañ lépp waaye fexe nañ ba ñëpp yam ci te ñu jox ñu ci gën a taxaw. donc secteur yoo jël. am na ci ab avancé bu am te defe naa incha allah. dañuy ñaan yàlla rek mu may ñu wër ak moom yàlla may ko wër ak sago bu mu eggalee yéenam bu bilan bi jotee incha allah ñu taxaw ak sénégalais yi ñun ñeme nañoo taxaw mhm. duñ ni lépp dox na mais ñu ba ñu ba ñu egg ci lool monsieur le mhm. ministre ay chiffres da koy avancé mhm. euh, trois cent cinquante mille tonnes ci autosuffisance ñu ngi ci neuf cent mille wax nga ma léegi ñu ngi ci trois cent mille ci emploi léegi léeg ñu dégg yeneen chiffre jóge ci ministre bi ñu dénk wàllu économie ak finance c'est-à-dire yooyu est-ce que dégg nga ni tout le temps bu ngeen ko yëkkatee ñu critiqué ko waaw est-ce que du ngeen fowee ay chiffres non non fowee wuñ ay chiffres li tax est-ce que du ngeen gonfler ay chiffres monsieur le ministre te bu boobaa xam nga naxu leen kenn seen bopp ngeen di nax non non non xam nga xam nga euh, benn différence rek moo ci am ci li ma wax mooy 300 000 emplois yi ma wax mhm. li tax ma wax 300 000 emplois c'est pas encore effectif ministre du travail c'est ministre du travail boo ko woowee danaan la 234000 la ñu créé ba décembre 2015. d'accord c'est bon c'est parce que man. Mhm. comme que maa yor emploi ñi ngi xayma. Mhm. xam naa ni entre 2015 ak 2016 def nañ lu mat 70000. d'accord emplois. Mhm. donc moo tax ma anticiper dama ni à peu près 300000. voilà man day man Mame Mbaye Niang. chiffre bu ma génne ñeme naa ñu dem. vérifier ko monsieur le ministre. ndax bi nga may defal bilan wu. juróomi at yi da nga fàtte wax waxeetu président de la république jàppooli boobu moo nekkoon bi euh, gën a am solo nga xam bu ko téye woon tey bilan bi mën a positif waaw su euh, ngeen ma falee déedéet dinaa ko def juróomi at mandat juróom-ñaari at yi yéene la yéene mhm. le président amoon ni bu ngeen ma falee mandaa bi ma def juróom-ñaari at moom ngay débuté sa émission d'accord d'accord waaw yéene la d'accord. non yéene la waaw ah, yéene wax uh-huh. mu ñëw méngale ko ak yoon. Uh-huh. conseil constitutionnel ni ko mënoo ko def mu ni nañ conformé wu. Uh-huh. xam nga kañ laa koy mettitlu wala ma man ko cee ma mën a ma mën a wax wax bu safaanoog loolu. jour bu conseil constitutionnel ne président lii la président bañ ko def. mais boobu ba léegi lépp lu ko conseil constitutionnel wax. dañuy wàccoog moom yenn saa ñu monter dossier prêt yóbbu conseil constitutionnel conseil constitutionnel génne mu topp ci yenn saa ñu ba monter financement conseil constitutionnel war a ab war a joxe ab accord mu bàyyi. parce que mhm. conseil constitutionnel wax na. Mhm. donc mën naa ko may la bénéfice. d'accord bilan bi liñ ci fàtte. d'accord mais yéene boobu yéene boobu mu yëkkati woon. Mhm. bu méngoon ak jëfam. tey yaakaaruloo ni ci ngeen di gën a nekk à no mais du nekk wax waxet bu ne fang nii. def na kéemtalaay kàttanam pour méngoo ak jëfam. parce que dem na ba soumettre ko conseil constitutionnel conseil constitutionnel ni ko mënta nekk donc méngóo na ak jëfam. d'accord man aw ma ci monsieur ministre xam naa ne waxtu bi li ci des bariwul ñaari question yu ñu bëgg a aborder rek. muy mm-hmm. vacances citoyennes. Mm-hmm. daf ci bari lu ñu la critiquer ci sa rapport ak Youssou Ndour. Mm-hmm. ñi koy wax jàppaloo ni wax nañu dëgg parce que artiste la dëgg la mais du moom rek moo fi nekk artiste mooy Youssou Ndour am na yeneen artistes yoo xam ne ñoo ngi fi mhm. alors est que jàppaloo ni itam ci ci variété mhm. ci jox ñëpp seen seen seen seen seen seen seen gëdd mhm. est-ce que gënul rafet bu ñu gisee artiste bu mag bu toll comme Youssou Ndour ëllëg ñu gis keneen ku mel ni Oumar Pène wala ku mel ni keneen a keneen parce que lu waral loolu mooy mais certes am na ñoo xam ne Youssou Ndour la ñu fan mais dafa ñoo xam ni mais Omar Pène leen ko gënal mhm. foo leen tegal Youssou Ndour duñ ko seetaan absolument mais est-ce que ñooñu amuñu droit nag parfois nga indil leen beneen artiste aussi bu taxaw ànd ak yow mais Youssou Ndour rek ma ci bëgg gunge te duma laaj dërëm non xam nga loolu man bu ma sañoon waaw man est-ce que abo est-ce que est-ce que abordé nga wax nga ak ñeneen ñi laaj leen lan lañ mën a def déedéet xam nga munoo yemale Youssou Ndour ak ñëpp xam nga lu tax parce que Youssou Ndour ci ñun la bokk dafay jàppale président nëbbu ko. mais raison de plus. waa déedéet xaaral xaaral. loolu itam conflit d'intérêt da ci daal di dugg. non amul conflit d'intérêt. ah kay xam nga conflit d'intérêt mooy am mooy am. mooy am fan mooy bu fekkee dañuy jël xaalisu askan bi di ko fay. vacances citoyennes yi budget bi trois cent cinquante millions la mën nañ koo génne jox ko conseiller Youssou Ndour minimum dina jar cent dix millions mu indi ci neuf daaw kon mënuma koo fay. ba pare jox xale yi ñu organiser ba pare fay li may direct direct yi télé yi fay émission yi fay parce que loolu dama koy fay loolu laay fay ca télé yëpp laay fay journal bi loolu dañ koy fay ci xaalis vacance bi lañ koy faye ca télé yëpp la ñuy fay. ñëpp la ñuy yàmmale. d'accord mais monsieur le ministre. non non dama lay lay wax mu gën a mmh. yomb mmh. ren. Mmh. yàggul dara avant muy tukki daf ma woo mu ni ma comme que dañoo bëgg a defar préparer communiqué man ak yow ñoo koy def ñu def appel woo ñëpp. man du ma def neuf concerts yëpp mais mën naa jël sama matériel jox la ku la bëgg a jàppale dëkk bi na wax déjà ban dëkk la lay jàppale dinañ defar programme bi suba nag yàllaa xam lan mooy am ci ministère bi ak kan la mais programme bi man ak moom incha allahu rabbi dinañ ko def et dinañ woo ñëpp mais li ñuy bañ. non monsieur le ministre xam nga woo ñëpp dangeen waroon woon warul xewoon a xaar. ba sax am ñoo xam ne dinañ ko diingat ngeen war ko def c'est-à-dire warul leen woon egg foofu parce que da nga ni ma Youssou Ndour ci ñun la bokk mais raison de plus ku bokk ci yéen non même bu fekkente ni loolu aussi nañ wax xam nga bu fekkente ni euh, Youssou Ndour daf la daf la daf la jox ay concert mhm. mais jëlal ci budget bi mhm. nga woo d'autres artistes dafa leen caché fay leen ñu ñëw mënuma ko xam nga lu tax mënu ma ko moom bu la ko gratuitement. defalal cachet yeneen artistes. au moins ñu gis leen ci sax mu am variété. non am naa am naa ay artistes yu fay. non man ah. waxuma ñooñu waxuma. non man su may wax artistes yu may fay de renom laay wax. ñoo xam ne mais nañu wax dëgg yooyu laa mën a fay. artistes yooyu laa mën a fay et artistes yooyu sax laa war a fay am na ay artistes yu may fay ah ñi ñuy joué avant Youssou Ndour mais ñi ci ëpp dama leen di fay mais nee naa Youssou moo ma fekk ma toog mu ni ma damaa bëgg a jàppale président ma ne ko kaa ñu jaay projet yi li ma ko njëkk a wax mooy fexeel moo tax ñi ngi tooñ jàmburu dama ne ko waa fexeel au moins nga may ma temps d'antenne munu ma munuma ko entreprise la fii laa ko doon ñaan temps d'antenne foo la mu may may émission durant vacances mu ne ma munu ma ko entreprise la mais ci li may def mën naa la ñu dem tàggu président mu ni ko première année bi ñetti concert la ma may deuxième année bi neuf concerts gratuitement nga wax de gratuitement nee naa la benn yoon laa mas a fay ci concert yu Youssou Ndour mooy Ziguinchor dañu ñëw maradien ni joxuñu ko lu mu jëlee ay man mani nañ jël loué ay barrières pour quarante cinq mille xaw ma jële ko ban dëkk indi ko loolu lañ mas a fay barrière man ànd naa ak moom hôtel ministère bi moo ma war a jël en charge en mission laa nekk moom mu fay ko nee na ren dinañ woo ñëpp. et ren incha allah on va appeler tout le monde. d' accord léegi ci beneen ponk xam naa mooy bu mujj bi mooy législative yi dafa mel ni perte ngeen ko d' avance à parce que bu fekkente ni euh, parti boo xam ni mënuñu dem ci ci ci ànd. Mhm. Euh, wax naa ko fii Diouf Sarr ci mhm. suñu émission. Mhm. ñuy ut beneen nit boo xam ni ku mel ni Ablaye Makhtar Diop. ñu yaakaare ko Ndakaaru pour mu génne leen ci. est ce que jàpp loon ni perte ngeen Dakar capital bi fii ci ay législative d' avance li may njëkk leeral mooy bu fekkee ni que ci ay xayma lañ koy jël. élection yi fi mujjee am ci xayma mooy référendum bi. ñoo gagné loolu consultation la ñoo gagné. non loolu consultation. bi ñuy compter suñu bopp nañu wax ci local yi mujj yi. non non bu ñu wax ci référendum. non s'il vous plaît. ba déedéet moom laa lay wax. loolu moom loolu ngeen ko bëgg a def élection. non man mais da ngeen daan wax ni du élection. man ni loolu. loolu loolu ñoom ñëpp àndoon. ñii di wax ñii ñii ñëpp ñoo àndoon. amuñu woon problème ci bii yoon sax ñoom ñëpp duñu ànd parce que nanguwul kenn jiitu sa morom ku ci nekk a ngi def say calcul mais ñun coalition la ñu demee donc yëfu Abdoulaye Makhtar Diop bi nga tudd ñi ñee koy wax rek kenn xamagul lan la président di def mais li am ba wóor. mais kenn dégg ko de mais mani. nit ñee koy wax mais ni ñuy waxee ni ñuy waxee ah. Abdoulaye Makhtar Diop noonu ngay dégg Amadou Ba am na sax ñu naan Maïmouna Ndoye Seck mooy jiite am na sax ñu koy wax. non pour régler problème boobu. moo tax ñu ne Abdoulaye Makhtar Diop régler ay problème mu Diouf Sarr ak Maïmouna Ndoye ak euh, Amadou Ba moo tax. ñu daal di indi beneen problème amul xam nga lu tax problème amul parce que ñun coalition la ñuy demee mhm. coalition la ñuy demee Benno Bokk Yaakaar la ñuy demee élection Benno Bokk Yaakaar la ñuy demee élection léegi ñi yaakaar ni dinañ perte mais li ci kanam dina li ci kanam rawul luy bët fii li ay nit toogoon ni que ñuy référendum bi la dañ koy perte. ban Benno Bokk Yaakaar. Ah, ah. ban Benno Bokk Yaakaar ban la Benno Bokk Yaakaar boo xam ni parti yi ko àndoon yëpp tas ngeen leen. mais. ma mbay affaire bi ñaaw na de. non mais yeneen. ñaaw na de. mais opposition bi sax a ngi tas. ba ci FSD/BJ yéen koy tas. mais kan ko tas. mais attends xam nga ni seen loxo génnu ci lii xew nii ñaaw na PDS tas na tasar déedéet déedéet mbay man lii xew amu leen parti kenn du am parti mais mais FSDBJ FSDBJ ñoo ko tas PDS opposition bi la bokk bokkul sax benn bokk yaakaar mais loolu laa lay wax nii non loolu laa lay wax nii dama lay expliquer parti yëpp tas ngeen ko Sénégal ni ngeen bëgg a politique Sénégal Sénégal bu élection di jub si ku ci nekk da ngay wane sa cofeel wala da ngay wane li nga bëgg ay nit nag bu ñu nekkee ci am réew ku ci nekk bëgg dara c'est normal que position yi différent mais li ëpp solo encore mooy nañ ko teg ci njub teg ko ci njub nañ ko teg ci njub moo am solo nañ ko teg ci dëgg di ko wax nii mais jëfe ko ma mbay teg ko ci njub teg ko ci ngor di ko wax nii mais jëfe leen ko mais ñun xew nii ci parti yi xam ngeen ni seen ko mu ne 7 millions la Macky Sall di jox mi ngi tooñ Aïda Mbodj nee na 7 millions de francs CFA man bu fekkoon nekk ci samay pexe. xoolal loolu 7 millions nga di ko di ko jox nit ku tas parti jàmbur. 7 millions bu fekkee nekk ci lu ma arrangé rek la. ci xaalis bu jógee fan. non mais nañ dem laaj Aïda Mbodj dégg naa kenn naan ah, pour te dire que nit ñi dañuy wax am na kenn ku ma dégg mu naan Macky daf ko woo naan ko ay gis nga fii nit ñi ci ay sos rek la ñuy wax ak créer kooku ni président daf ko woo naan ko xaw ma xalifa président musu ko woo téléphone musu ko recevoir. pour te dire dëkk bi ba fan lañ nangoo def wax ni dafa yomb. yaakaar nga ku toll ni Moussa Tine ci télé laa toog di wax ci télé moom itam lu dul dëgg. mais ci télé laa toog man maa ni la président musu ko woo musu ko recevoir. est-ce que est-ce que gis nga yëf ni mu ñaawee. waaw ah, mais non man xam nga man du ma gëm li nga wax di weddi li mu wax monsieur le ministre. waaw d'accord non non. man man Pape Ngagne je pense que moom aussi amul intérêt di wax lu amul. man sama bopp. man sama bopp. Hmm. aw ma intérêt pour wax du question ni que damay wax ci télé wala rigueur personnelle la. Hmm. c'est-à-dire man ak sama akulaay taalaa laay xool. ma jiiñee nit damay am. firnde bu ma da nga contrôler téléphone président yi. non non contrôler. téléphone ku la wax laajuma ko ko musu ko wow mosu ko recevoir. Mhm. après ñu ni président moo ni te pourtant ñoom am na ñu ñu yónni te bu ñu insister man dinaa ko wax. ñu ñu yónni pour. am na ñoom ñu ñu yónni. te bu ñu insister man dinaa ko wax yónni mooy lan ma dara lu ma dégg. déedéet c'est-à-dire naan ay président moo wax ni que ay xaw ma. Euh, waxal xalifa waxal xalifa candidature am ay yónnee nañ ci man pour ma dindi sama candidature pour ñu régler problème bi amul de. ñoom ñoo am ñu ñu yónni ñoom. man bu ñu insister man dinaa wax ñoom dinaa joxe turu ñu ñu yónni te duñu weddi. xalifa ñu mu yónni moom. waaw. xalifa ñu mu yónni ci président. ma ni waa kër googu dañuy faram fàccee waxuma waxuma xalifa fi nekk di junju. waaw non ñun dañuy xam nga xaw ma la ci langue de bois. nii gan xamewoo ma ci langue de moo tax mani la mani la boo ma waxee moom bu amee courage wax même boo weddee. dama bëgg nga ni moo tax mani la moom ni moom moom président la waxal. waaw la la cité nommément ni dama koy wax. ñëpp dégg ko man maa ni la yow boo nee nag am na ci seen camp ñoom ñu yónnee ci président bu ñu bàyyiwul ñoom mani la ñoom non ñoom lu ñu bàyyi wax nañ ba pare non mani bu ñu bàyyiwul li ñuy wax man dinaa wax ñu jóge ci ñoom ñëw ni xalifa moo leen yónni wax leen lan mani wax leen lan ñu bàyyi wax li ñuy wax ni ko xalifa moo ko wax ni lan waaw mais bañ ci egg ci ni lan boo ko waxul mel ni da ngay da ngay waaw mais déedéet je vous en prie monsieur le ministre la du ma du ma wax dama ni waaw moom Moussa Tine nee na waaw président moo ko wax ni que waxal xalifa mu teg candidature am man nee naa président musu ko woo musu ko recevoir. d'accord wax jooju musu ko wax nañu bàyyi wax yooyu ñuy wax. d'accord d'accord monsieur le ministre gërëm naa la sant naa la. kontaan naa ci recevoir la ma bàyyi la nga tàggoog mbokku téléspectateurs yi. waaw santati naa la vraiment merci beaucoup. <laughs> c'est dinañuy neex trop ñu ñëw bokk ak yow émission di la remercier ci ci ci ci ci taxawaay bi ak peut-être euh, émission bi ni nga koy animer. ku fi toog mën na wax ni ko faraloo ko mais jàpp naa ni faraloo kenn et defe naa loolu mooy sa cër di la tamit ci livre bi nga bind ñu liir ko jàpp ni que modèle la pour ndaw ñi parce que ci semaine nationale de la jeunesse lañ toll ñu ngi wax ay parrain mm-hmm. mais wax dëgg yàlla sa jaar-jaar ni nga ko bind ci livre bi ndaw ñi war nañ koo mën a lire pour gëm seen bopp lii mooy wane ni que nit ki bu gëmee boppam dara jomb ko mën naa egg fépp fu mu egg ci ndimbalu yàlla ak ñaani way juram mm-hmm. di sant ñëpp di ñëpp di bu ma fi waxee lu xaw a vexé kenn wala lu xaw a yëngal kenn maa ngi jéggalu yéene bi mooy leeral rek. Mm-hmm. Mm-hmm. jërëjëf monsieur le ministre mbokk yi mu nekkoon Mame Mbaye Niang nekk jëwriñ ñu dénk ko wàllu ndaw ñi ak emploi euh, moom itam ñu koy gërëm bu baax dañu am mbégte di ko recevoir ci Faram Facce ndax dañuy sawar ci déglu ko à cœur ouvert lay waxee ak ñun euh, te loolu dafa am solo ci Faram Facce kon mbokki ñu leen di jox daje incha allah ci beneen jotaay bu ci yàlla di gërëm la régie ci ni nga xam ne noonu la ñuy jàppee ci émission bi jërë ngeen naa ko yemale ci juróomi at ndax li ñu bëgg mooy démocratie sax bi